aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah waa kay soxna jaara jaaratullah Mountakha ñoo ngi leen di sant tey jii ci ñëw bi ngeen ñëw ànd ak mbooloo mi nga xam ne ñoo yor liggéey plan de bi ñu waxoon ci liggéey boobu kon nag moo waral jataay bi waaye nag dama ciy profité nag pour gën a sant ñi nga xam ne ñoo nekk ci fédération bi yëpp xam naa ne gën leen a soññ soññ dafa mënut a ñàkk waaye xam naa ne ñu ngi ci ndax yi sasoo sasoo boobaak léegi bare na lool te rëy kon nag euh, ña nga ca ñoom ci lañu war a nekk waaye nag moom toujours day bañ a seet li weesu rek xanaa di jëm kanam kon nag ñu gën a euh, soññ rek euh, ñi nga xam ne ñoo bokk ci fédération bi yëpp rek kenn ku ne gën cee taxaw kenn te xam ne boo gisee fédération bi tam di ci woo mboolem ñi ngeen nekk daayira yi nekk daanaka mën naa ne sax cap te bokkuñu woon ci fédération bi itam ñu gën cee bokk ndax ak àndandoo liggéey dafa ëpp njëriñ eh, dafa gën a woom mën naa ne kenn ku nekk sa liggéey ndax eh, benn daayira bu nga xam ne xaj na ma kese bu mënoon a engage lii ñu engagé léegi mën naa am bu ñu ko doon def individuellement du mën a nekk waaye gis nga bi daayira yi daje Eh, projet yi ñu bëgg a def te war ko mën a def bi ci bi ci jiitu fi mu nag mooy lee ñuy def programme ci bâtiment bi nga xam ne moom lañ engagé tàmbali ko te ñu bëgg lool mu mu mën a àgg itam fekk vacances yi jeex ndax ay dëkkukaay la dëkkukaay enseignant yi dafa nekk ak yooyu kon moom li ci gën rek moo ñu fexe ba mu mën a àgg ci vacances yi ba nga xam ne ñoom bu ñuy dellu siwaatee fekk logement yi kon nag loolu itam ñoo ci soññ ñu bari ci liggéey bi eh, di leen ci gën a di gën cee taxaw li nga xam ne ni lañ ko taxawee waaye ñu yokk ko rek soñ li ma waxoon ci njëlbéen gi loolu yéen moom soññ dafa mënut a ñàkk waaye yéen a ngi ci kon nag eh, ñu gën leen cee kii rek ba nga xam ne te itam ñëpp xam ne itam loolu lenn la ci liggéey waaye bu loolu aggoon itam da ngeen di jëlaat leneen ci liggéey ndax loolu mooy seen mooy seen bëgg-bëgg mooy seen yéene kon nag yal na ko yàlla àggale ak jàmm yal na leen yàlla taxaw ba kenn ku ne eh, la nga nekk yàlla defal la ci tawfeex defal la ci ndam defal la ci ak man ba lii itam di gën a yokk àndandoo gi di liggéeyee sëñ Touba di liggéeyal maam Jaara loolu lépp kenn ku ne gën koo yokk kenn ku ne gën koo man ba nga xam ne kenn ku ne sa yéene ji lu mu rëy rëy itam da nga ci mën a def loo xam ne dina gën a mën a feeñal yéene ji loolu la woon kon nag noo leen di gën a soññ rek eh, di gën a xiirtal itam yeneen daayira yëpp ñu bokk ci fédération bi ndax gën a mën a ànd ci liggéey bi mu gën a mën a gën a màgg ndax eh, xaj na ba nga xam ne amaguñu woon fédération bu toll nii boobu itam liggéey yi xaj na mi ngi yemoon rek ci tàmbali ba yemoon ci parrainage yi te boobu sax waaye lu mu gën a yaatu liggéey bi di gën a yaatu ñu di ko gën a man kon nag loolu itam maa ngi ciy gën a soññi daayira yi rek ñu ci ñu ciy gën a nekk waaw di di di santal soxna Jaara nag ñu mu àndal ci liggéey bi yëpp surtout équipe bi nga xam ne ñoo yor pour euh, ñoo waroon defaraat plan de masse bu nga xam ne pour daara ji lépp la euh, ñu am ci yéene lool am ci Pastef kon nag euh, ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax ci liggéey bi bi ñu def liggéey bu gaaw a gaaw la te liggéey bu rëy la waaye seen Pastef ak seen bëgg-bëgg tax na gaawal nañ ko lool te dañoo am ay liggéey yeneen yu bëree bëri waaye loolu yëpp seetuñu ko ñu jàpp ne li ñu war a liggéeyal sëñ Tuubaa moo jiitu kon nag war nañ cee taxaw kon nag loolu waaw ngeen gën a xam ne kon yéen itam sëñ Tuubaa ngeen defal te sëñ Tuubaa koy defal yàlla rek ngay defal te ku ko defal itam yàlla moo am na ay fay kon nag naal na leen fay seen euh, seen liggéey ci seen bopp ci seen njaboot taxawu leen ci ci barkeb Sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo nu fi dajale moo tax ñuy def ñoo ngi leen di sant bu baax donc soxna Diarra mi ngi gën a sant mboolem ñi ngi àndal ak membre yi fédération bi fu waay man di nekk itam euh, na xam ne mu ngi leen di xalaat. Eh, te moom itam yàlla dimbale ko ku mën a jaboote la ku mën a jiite la ci loolu xam nag ngeen gën a ànd ak moom ci liggéey bi rek parce que yéene liggéey bi bañ a bañ a taxaw xam naa ne du taxaw sax waaye muy yokk waxtu ne rek ba nga xam ne bu lii àggee itam ñu mën a tàmbaliwaat leneen ci alhamdulilah lii ñu nar a def place de masse moom dana leeral lépp li nga xam ne moo fi ay liggéey yëpp dana ko leeral ba ëllëg si biir ñeneen ñu bëgg a liggéey itam day daal di jàpp ni ci ñoom. ñu gis ñu daal di sasoo leen nag def ko fekk na lépp pare na daanaka plan yi pare na lépp pare na leen di gën a noppal ñëpp ëllëg si ku ci liggéey tax na ñoom itam lii buñ ko àggalee itam wóor na ma ne dañu daal jëlaat leneen kon nag la ci ñëpp gën a taxaw ndax ab liggéey sëñ Tuubaa moom du taxaw te du wàcc wàcc moom wàcc wàccal sëñ Tuubaa moom dellu delluwaat rek moo koy waral loolu tax Cheikh Moustapha mu baax ma waxoon baatu wàccub liggéey baat boobu mën naa ne moo ko moo ko moo ko moo ko def ci eh, ormay Cheikh Abdou Lahad koy tàggee la indi baatu wàcc liggéey nag moom kuy liggéey pour sëñ Touba amul wàcc wàcc gi mooy ëllëg ku fi jógee rek mooy tax nga wàcc kon nag na ci kenn ku ne gën a gër gërgóorlu te xam ne itam loola rek mooy li am njëriñ ëllëg bis bu wàccu liggéey amee liggéey boobu rek ngir yàlla mooy am njëriñ kon nag ñoo ngi ciy gën a woo ñëpp ci gën a soññ ñëpp ba niñ ko bëggee ci daale ji lu rëy rëy la projet bu rëy rëy la waaye Cheikh Moustapha naka jekk bi mu koy kii it xamoon na ne pasteefum nit ñi ak seen euh, bëgg sëñ Tuubaa bëgg maam Jaara lu mu rëy rëy dana ko àggale kon nag ci lañ nekk ndax moom fii ne dañuy gën di améliorer rek waaye daara ji moom àgg na waaye dañuy continuer ndax liggéey bi du taxaw ndax ñun ñëpp gis nañ euh, liggéey jumaa yi dañ ko defee nangami at la kon nag lii itam dañuy def rek fu ne rek dañuy topp ni ko def ba nga xam ne euh, même buñ demoon ba fee fees it dañuy wutaat feneen di fa def ndax daara ji day gën a yaatu ndax ñi ko gën a bëgg dañuy gën a bari xaj na possibilité yi gën a mën a jël ñu bari itam day gën a bari ndax nit ñi dañ ciy gën a jëm di gën a xam loolu gën a sawar ci lépp lu nga xam ne da koy financé kon nag loolu itam du am solo ndax lépp bur woon ak nit ñi taxaw di ko def muy daayira yeeg lu nen ni itam kon daara ji bu taxaw ay Cheikh Moustapha xamoon na loolu ba tax mu semb semb mu rëy nii waaye boobaak léegi léegi mu mat fukki at ak nangam waaye day yokk waaye wàññi ko wut ci lañ ko gisee te day gën di yokk man def ci ci wet gune ci qualité bi eh, lépp day gën di yokk day gën di mel ni nga xam ne moom la yéeneem ji ndax yéeneem ji réyoon na rëy goo xam ne nii eh, ku ko xam xam ne yéeneem ju dëgg jooju nu ma def yàlla àggaleel ko kon nag ku ne daa war a sant yàlla bokk ci liggéey bokk ci liggéey bi loolu tax Cheikh Mountakha waxoon ne tey la na ci boppam ndax rek bëgg maanaa fu fu mu ko fekk rek mu rawati ko te dana ko raw boobaak léegi rek fi ñu àgg wax dëgg yàlla mën nañ ne fooguñu ko woon te day yokk kon nag da ci gën a ñëpp gën a taxaw ci liggéey bi rek kenn ku ne soññi sa moroom kenn ku ne Eh, yéene ko sa morom ndax moom lu ci waay def it sa bopp nga koy defal ndax sa digganteeg sa morom la kon nag eh, na ko ku ne sa morom moo waral yëg léegi ndax coono yi ñu ciy def ak yooyu yëpp bu du woon nag bu du woon nag eh, yéeneente ko loolu mën naa bañ kenn ku ne day téye def la ngay def rek bàyyi sa morom waaye yéeneente gi lu baax moo waral woote gi moo waral dajeb daayira yi moo waral kenn ku ne yéene sa morom lu baax te lu baax. mënta weesu lu mel nii kon nag euh, ñu ngi ciy gën a soññaat ñëpp di gën a woo ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah